ay partenaire am Saloum Dieda World Trading Clinique Keur Marie ak International Travel ñoo leen may seen émission wérgu yaram les mercredis de docteur Konaté. salaamaaleykum euh, auditeur Sen Info waaye tey euh, ñi ngi dellu siwaat euh, si suñu émission bi. émission bi nga xam ne léegi vraiment nit ñi ñu ngi koy gën a di bëgg gën a di apprécier ñu ngi woow de partout France États-Unis Italie Espagne partout partout euh, Sénégal tamit euh, nekk ñu ci ginnaaw dañ may poser beaucoup beaucoup de question par rapport euh, ak euh, euh, émission yi nga xam ne yu ñoom ñoo jiitu Euh, loolu mi ngi tekki ne mi ngi gën a intéressé nit ñi ñu ngi leen di ñun tamit gën a ñaax ngeen gën a kolewu euh, si seen info pour euh, gën a seetaan émission yi parce que jëriñu askan bi la Euh, tey euh, la dernière fois ñu ngi wax waxu cancer du sein c'est ci cadre euh, octobre rose bi liñ ma posé ci ay questions liñ ma li nit ñi intervenir kenn xamul nu nu mu nu mu toll ben maa ngi remercier vraiment intervenant yëpp et puis euh, di leen remercier tamit pour euh, intérêt bi nga xam ne euh, moom ngeen def par rapport donc ak question bi et toujours donc si même si même cadre bi tey dinañu wax waxu beneen cancer boo xam ne dafa bëri si jigéen ñi bëre à travers dans le monde dinañu wax euh, waxu tey cancer du col de l'utérus lu tax ñu war ci wax parce que déjà par rapport ak âge bi nga xam ne dañ koy découvrir c'est entre vingt cinq et cinquante cinq ans ñaar fukki at ak juróom juróom fukki at ak juróom euh, ay jigéen yoo xam ne vraiment ñooñu dañ leen war a jàppale pour ñu am seen wér-gu-yaram bu bu jaar yoon mais imaginez euh, vingt cinq ans nga def euh, feebar bu mel noonu euh, loolu moom dafa dafa doy waaru dafa doy waaru donc âge bi le plus souvent vingt cinq cinquante cinq ans ak benn ak benn pic à quarante ans donc quarante ans Sénégal dañuy wax ne yow diriyànke nga dañuy wax diriyànke nga donc nit ki mi ngi toll si diggi ndëndëm donc digg na dem mu am euh, lu mel ni benn cancer du sein wala cancer euh, du cole de l'utérus donc euh, loolu war na mun a ñàkk Sénégal par exemple actuellement cancer bi mi ngi jaxase dëkk bi mi ngi jaxase dëkk bi parce que am nañu annuellement benn nombre de décès ñi nga xam ne ñoom ñooy. décédé ñoom ñooy gaañu ndax cancer bi cancer du col de l'utérus euh, toll nañu ci 1200 chaque année donc euh, loolu bëri na donc euh, te cancer bi ah à travers le monde donc chaque année dañuy am benn lu toll ni nouveau nouveaux cas donc à travers le monde mais alhamdulilah. depuis que nit ñi ñu instauré vaccination bi instauré dépistage bi euh, cas yi mi ngi wàññeeku mi ngi wàññeeku à travers le monde mais Sénégal quand ba léegi dañu xaw a euh, des euh, ginnaaw donc loolu moo tax loolu mooy motiver par exemple ñun suñu émission bi pour gën a ñaax suñu jigéen yi ñu gën a jege suñu. Euh, professionnels de santé yi euh, pour ñu mun a xool naka la def pour dépistage bi balaa feebar bi di leen euh, di di yeeg toll foo xam ne dafay xaw a doy waaru ñu mun a agir réagir pour mun a dimbali leen pour que ñu bañ a yegg ci yenn stade yi donc cancer bi naka lay. manifesté woo naka nañuy xamee ni ah attention nit ki euh, war nañu mun a xalaat loolu ah war nañ ko mun a xalaat war nañ ko mun a moytu mooy euh, jigéen ñi nga xam ne boo dañu am borom kër suñuy sëy ñu gis ne que ne sëy bi dafa xaw a su ñuy yëg métit normalement sëy dañ nga war a yëg bànneex bu fekkee nag dem nga ba yokk sa borom kër ngeen jotee nga gis ne que ne euh, dafa da nga koy yëg ay métit ay métit yoo xam ne dafa xaw a taab bu boobaa war nga mun a ñëw ñu seet la war nga mun a seet sa bopp bu fekkee fii nga xam ne moom mooy nëq bi ah su suuf nga bës ko nga gis ne que ne euh, da nga fa yëg métit bu boobaa tamit euh, loolu war na la euh, ñaax euh, nga daw si seet si professionnel de santé yi et yi nga ñëw ñu xool bu fekkee dañ la war a defal benn dépistage wala defal la yenn analyse yi pour mun a xool ndax yow feebar nga wala yow feebaruloo bu fekkee sooy tuur ndox tamit euh, da ngay gis ne que ne euh, dafay euh, metti walla nga tuur ndox gis ci deret bu boobaa tamit war nga mun a seet sa bopp bu fekkee tamit da gis deret te sa waxtu règle jotagul ah sa waxtu règle jotagul loolu tamit war na la Euh, poussé pour nga ñëw seet ñi nga xam ne ñoom ñooy professionnel de santé yi pour ñu mun a étudier sa cas pour mun a xool ndax euh, yow amuloo feebar bi wala ndax amuloo sax beneen feebar mun na nekk beneen feebar sa veut pas dire que da nga am métit walla da nga tuur ndox mu métti wala da nga am deret que cancer la loolu yegguñu ko waxuguma loolu Euh, loolu soo ko kiwee bu fekkee feebar boo xam ne feebar bu simple la en ce moment là faj bi dafay gën a gaaw faj bi dafay euh, gën a yomb bu fekkee genre feebar yu mel ni la nag ay cancer euh, nga teel si jóg nit ñi dañ lay gën a mën a toppatoo et plus nga teel si jóg plus donc toppatoo bi di jaar yoon après métit bi ak tuur deret bi ak yooyu bu fekkee am na am na yeneen signes yoo xam ne mën nañu wax ay mën nañ leen woowee ay euh, signes associés mooy nga anémie nga perdre poids nga perdre appétit wala nga am ay euh, difficulté pour euh, yi donc yooyu yëpp soo ko gisee boole ko ak li ma njëkk a wax bu boobaa war nga mun a ñëw ñu gën la gëstu et wax la réellement lan moo la jot te ci ñu la waxee li nga xam ne euh, moom moo la jot bu boobaa faj bi donc euh, dafay euh, gën a gaaw day gën a gaaw donc day gën a jaar yoon maintenant feebar bi bu fekkee par exemple yéguloo dara mun nañ la defal lu ñuy wax dépistage ah mooy jigéen yépp ñoo xam ne toll nañu diggante vingt cinq ans ba cinquante ans ba soixante ans sax euh, bu fekkee chaque année mun nañu ñëw ñu defal leen ce qu'on benn frottis frottis bi euh, moom mooy examen bi nga xam ne moom moo ñu mun a wax ne nit ki am na cancer wala amul cancer léegi bu fekkee tranche yu jigéen boobu chaque année mun nañ ko def ñu def ko ñaari yoon ñetti yoon euh, bu fekkee gisuñu dara. en ce moment là nit ñi mun nañ ko def par ñaari at wala par ñetti at ah su fekkee gisuñu dara macha allah alhamdulilah ñooñu amuñu benn problème bu fekkee nag am na loo xam ne dañ ko gis euh, si seet bi en ce moment là dinañ leen wax ah demal si bërëb sangam wala demal si diw kooku mun na la defal lii ak lii ak lii ku boobaa yow. Euh, sa wér gi yaram donc euh, da nga koy gën a gaaw a <coughs> récupérer donc à part euh, frottis boobu bu fekkee par exemple frottis bi dafa am lu mu wone mun nañ la boole ak ñoo xam ne ay seetkat yu xaarañ ñoo xam ne mun nañ la defal lu ñuy wax par exemple bu biopsie ah ñu jël benn partie ci butitu jurukaay bi et am luñ koy seetee donc loolu tamit euh, beneen euh, façon seet la lool tamit mun nañu won wala ñàkk ñu won ne feebar bi la te bu boobaa tamit dañuy xam exactement fan nañ yi mun a donc euh, teg suñu tànk suñu seetee ba xam ne que ne affaire bi lii la lan moo siy faj bi faj bi dugg ci détails yi mais mun na nekk euh, opération ah moom mooy la chirurgie mun na nekk euh, lu ñuy wax radiothérapie radiothérapie euh, mun na nekk chimiothérapie la ay garab yoo xam ne nit ki daf koy naan wala dañ ko kay piqûre wala dañ ko kay perfuser suñ su ko defee <coughs> loolu mun na ko dimbali pour. donc euh, feebar bi mun a euh, mun a dellu ginnaaw donc euh, loolu nañu amoon tey pour wax leen sur bon maa ngi doon fàtte y également la notion de <coughs> vaccination si si faj bi la bokk ah vaccination bi mooy jigéen yi nga xam ne commencé gu ñu sëy mooy xale yu jigéen yi am entre 11 ans ak 14 ans donc mun nañ leen vacciner par euh, benn vaccin contre HPV moom mooy virus bi nga xam ne moom mooy euh, andi feebar bi donc loolu suñ ko defee rek euh, mun nañu régler ay problèmes yu bëri donc di remercier encore auditeurs yi di remercier suñu caméraman suñu technicien Abdel toujours présent actif offensif et di leen jox dig daje.